tay nak amna ñu jog génn di wax ku ci mel ni Touré dal ci collectif Renaissance pour ñu ko lu collectif Renaissance ma fi nekkoon di xeex ngir stade bi ñu délo ko jeunesse bi bi mbir yoy amé nak ciow jund na fune ku nekk mi ngi wax tay nak ñu toog fi ko xam na ñu koy Papis di président khamda do Rebeuss Bok aussi ci collectif Renaissance monsieur Niang ñu lay nuyu. ma ngi len di fay di len nuyu yéen chaîne internet Rebeuss TV di nuyu tamit téléspectateurs yi nga xam ni ñi ngi abonné chaîne Rebeuss TV di leen d'abord di leen ziar di leen baalu àq si it bi ñu jóge di wax ni yalla ñu yalla defal ñu téwé ko ay ati at yàlla may ñu fan bu gudd ak wér gu yaram aussi daxal ñu mbas bi nga xamni sonal na askan bi yëpp quoi voilà loolu la amoon lu quoi. gis nañu tey Stade assan Diouf ba léegi mu ngi wéy di am ay coow depuis bi ñu ko fi joxee depuis 2004 ba tey dañuy revenir un ci ginnaaw Stade assan Diouf joloon nañ ko fi Abdoulaye Wade mu nekkoon président à l'époque jokk ay chinois pour ñu teg fi benn projet bu tudd projet Kawsara amoon ay responsable politique yu nekkoon fii biir Dakar àndoon ci mbir yi tey mbir yooyu nan la tëddee woon. waaw d'abord euh, mbir yooyu bi am 2004 euh, dafa fois amon ben euh, ablayan fi jëloon tey Esat Assane Diouf jël ko jox ko ay chinois ñu ko chinois d'ailleurs sax du chinois c'était un pakistanais d'abord ñu ko joxee pakistanais bi yalla def mu génn aduna. Ben chinois ñëw kazaalika mu génn aduna. ba beneen chinois ñëwaat loolu andi projet bi bi ñu ko am collectif bu fi taxawoon boobu jamono te ba léegi mi ngi fi di ko xeex bi lan pour sàmm suñu alal parce que stade bi tam quoi qu'on puisse dire c'est un bien public qui appartenait à tout le monde mënuñu woon concevoir état bi fi nekkoon jël ko bëgg ko aliéné jël ko jox ko ay étrangers des privés étrangers loolu moo waraloon collectif bi jutu waaw

Nous avons des est-ce que comprendre comprenez mais nous sommes teewul nous avons un collectif qui mu fi juddoo qui fi di parler nous fait du avec fi parce que stade bi nous ko gens te lu faire. quelques personnes qui jël à d'autres fins collectif voilà ça fait maintenant 16 ans nous mais mais stade biñ ko joxé bëss bés bu ñuy dem démolition beeg yooyu fan ngeen nekkoon yeen woy loolu yëpp am ci <laughs> boobu yaa ngi ma bëgg a dellu en arrière y a des faits yoo xam ni li ma la wax rek les gens ne sont pas amnésiques ce qui s'est passé dans l'affaire du stade là tout le monde le connaît ñëpp xam nañ ko donc mënuñu fi nekk di revenir en arrière wala quoi que ce soit ñi ngi fi woon mu fekk ñu fi man dégg naa ñu ne buñ ñu koy démolir jeunesse bi yëpp dañ demoon Magal Touba. kenn des c'était la veille de Magal Touba c'était la veille de Magal Touba il y avait personne ici les jeunes étaient partis à Touba dem bon par la suite derrière ñëw gars yi ñëw démolir stade bi bon ñëpp xam nañ ci condition yi ñu ko démoliré mu mu mettit lu woon mu metti woon ñu bëri askan bi metti lu ko woon mais bon voilà teewul ba léegi bi ñu ko démoliré tam nit yee ngi nekk fii toog di xeex di continuer di xeex. waaw parce que loolu aussi taxul loon tamit gars yi bàyyi xeex bi mais ba léegi ñu ngi si. gisoon nañ ci biir collectif bi y avait la famille omarienne aussi waa Kusum parce que suñu nee Medina xam na ñoom biir stade Assane Diouf lañ doon entraîné euh, te nee nañ stade bi Rebeuss moomu ko stade municipal da Dakar la tuddoon collectif bi si nan la juddoo. waaw collectif bi mooy li may wax si loolu la juddoo parce que collectif bi du woon waa Rebeuss rek ñoo ko ŋànk. à Plateau wa Kusum wa medina à Dakar en général parce que comme li nga wax wa nga municipal tout donne de Dakar la preuve voilà, ñu ko avons jox état mais il a fallu une délibération de la ville de Dakar parce que mom moko ko donc stade bi département Dakar moko ko donc ville de Dakar mo def délibération pour le monde mën ko céder à l'état sénégalais C'est ce andi loolu té nak comme li ñuy wax rek lu ñëpp bok kenn du ko jël diko saax-saaxee wala di ko jox kenn rek mu koy jëriñoo te dañu ne woon bon stade bi bi ñoom tam biñ ko defee gars yi ñaawlu nañ ko mais teewul ñu continuer di xeex si combat bi ba léegi gis nañu ne barki barki démb la ñu wax sax euh, parce que ndax yàggul ministre Abdou Karim Fofana génne benn communiqué ne stade bi restitué nañ ko mais ci loolu am na kuñ dañuy tudd trop muy Baba Touré génn na dal ci collectif collectif René Sanchez nee na collectif bi dem nañ gisante ak ministre bi trois fois sans pour autant biñu ñu rendre compte ñi nga xamné ne ne ñi leen yondi won d'abord damay def ben précision collectif bi deux fois le gisee ak ministre bi c'est pas trois fois benn bi c'est au point e, chez lui benen bi c'est à Diamniadio dans son ministère man mi wax ak yow nii j'étais là-bas pour la deuxième audience té biñ fa démé biñu né dañ ko delloo delloowuñ ko ministre bi nous a fait des propositions on a discuté, mais nous ne sommes pas tombés d'accord. Parce qu'à la place d'un stade, il nous a proposé un terrain. ce que nous, avons refusé. Le stade c'est 24 000 mètres carrés. Presque 25 000. 2 hectares 5. Nous avons à la place d'un stade, on nous propose un terrain. Nous avons refusé catégoriquement. C'est ça le problème. Le ministre, lui, lui nous proposait, mais bah, c'est en discussion. Proposez nous mais d'accord, nous avons droit d'accord. Et puis, nous avons dit, si nous devons rendre compte, est-ce que nous devons rendre compte Est-ce que nous devons nous Mais nous avons des femmes Ils n'ont jamais été dans le combat du stade. Nous avons des femmes Ils n'ont jamais été dans le combat du stade pour dire vrai. Tout au début, ils étaient là-bas. Mais après, on connaît la suite. Et pourquoi nous avons dit que nous rendre compte Mais nous devons rendre compte, parce que nous rendre compte, nous rendre compte. On était le ministre nous a reçus le 23 juillet. C'était la veille de la Tabaski. On était à une semaine de la Tabaski. Il faut que après nous avons une assemblée générale. Mais on va laisser au moins le temps aux gens de passer la Tabaski, après de faire le point. Si nous avons une l'assemblée générale, nous avons c'est tout pour informer la population parce que ñun tamit li def pour population bi la defuñu rek tok fi pour qui entre quatre murs wax li ñuy wax après mu jeex buñu paré on dañuy tok informer wo population Dakar waxuma Rebeuss mais Dakar pour restituer len les faits li nga xam mo am ministre bi daf ñu defal proposition ñu ñu wax pendant plus de deux heures de tour d'horloge mais on n'a pas réussi à, s'entendre, à trouver un consensus. Il nous a dit de rentrer et on verra de continuer à poursuivre les, les, négociations. C'est ce que nous avons fait. Mais le mot le ministre, c'est inélégant. Tu ne peux pas être là entre deux personnes, deux entités responsables, tu sors un communiqué. Tu balances ça dans les médias pour dire que Nous Sénégal ñi fi nekk duñu ay golo ay nit njaay ñoo fi nekk moom wax na li wax c'est pas à lui de sortir ñun bu ñu génnul. moom mais est-ce que mën nañ xam ministre bi yan condition ak yan proposition la leen jox. mais proposition mooy li ma la wax terrain la ñu jox ne waa mosquée Amaria dañ leen di décaler de 15 mètres 20 mètres li si des ñoom ñu jël ko un hectare 5 yi defar ko ay tour mais ay tour mais attends ñoom déjà ils nous proposent un terrain bo xamni si c'est un titre foncier la nekk bu ëllëgee bu ñu xëyee ne ñoom dañuy récupérer ak seen terrain lan lañ ci mën lan lañ ci mën dal suma su wax di ministre li mu bëgg moy jël une partie on dañ divisé diviser trois parties. trois parties du trois parties parce que Omarienne bi amuñu trois parties parce que Omarienne bi juste quelques mètres lañ lan di may lañ lan di décaler li si des y aura une rue qui va passer par là qui va sortir sur la corniche. est-ce qu'on comprendre nga li si des ñu defal ñu terrain dafal ñu ñaari espèce de tribune ñun duñu ay xalé ba ñuy nax terrain bu ndaw c'est juste un terrain d'entraînement le reste mu nek ay immeuble est-ce que comprendre nga loolu la bañ ne duñ ko nangu Macky Sall moko wax ñun kenn saxlu ko suukar moom mo tok fi en 2000 conseil des ministres 2016 27 juillet ne stade bi delo na ko jeunesse dakaroise bi mais lan ñun li ñu koy laaj c'est simple on lui demande de respecter ses engagements. le stade bi moom moo moko wax je suis en conseil des ministres mais sinon que vaut la parole d'un président de la république Je maintenant nañu waxante de moom wax askan le 27 juillet 2016 conseil des ministres décentralisé à Pékin. mais qu'est-ce qu'il attend maintenant Nous avons suñu stade bi Dakar moko on a eu la chance nak stade bi bi mais stade bi wa Dakar ñoko ñun mënuñu ñëw rek parce que rëbësois lañ ñu proposé ñu benn tànnaay ñu ne nañ nangoor nangu waa léegi ñu doon xeexal démb nag ils vont nous traité de lâches si c'est bu ñu demoon ba nangu taana bi mais ñu doon xeexal démb kon dañuy wax ni waa rëbës ay lâches lañu. est-ce que loolu yenu na maanaam di nga ànd ak ay nit di xeex benn combat yow ñu ñëw parce que compal nañ la benn affaire rek nga ne non léegi le reste les gars débrouillez-vous attends ñun duñu ay lâches ñun ne des lâches te gis nga con fii euh, comment dirais-je collectif bi ñu ko séq ñëpp.

Non, d'accord nañu ci proposition du ministre. mais nous, bu ñu gisanteeg moom c'est à la demande c'est à leur demande parce que nous, ñoom ñoo demandé gis ministre. parce que moi, wax na ko Moi, moo ne man demandé ministre bi keroog bi ñuy démolir Sandaga pour ñu ñu bañ ko bëgg voilà ah, man j'ai vu mais c'est c'est à leur demande Nous, nag c'est le contraire c'est le ministre nous demandé à nous rencontrer. te xam na ni le seul interlocuteur valable ici dans cette affaire là c'est le collectif C'est ce loolu kon du collectif bi nek di xeex benn bir pendant 16 ans koku mënoo def dara nga ni doo kon lutax tax mu wooñu xam na voilà. soulever nañ aussi problème terrain bi nek bir éco Rebeuss ñu ne terrain ay sé Xandalu de Rebeuss lañ ko lañ ko jox à l'époque tay yo en tant que président ay sé Xandalu aussi bok ci collectif René Sanchez yan éclaircissement nga ci mëna indi. terrain bobu li ma si xam man aw ma ci grand chose j'ai un papier que j'ai vu. Mais c'est un bail que l'État sénégalais nous avait donné. Un bail de, c'est de 25 ans, je ne sais pas, sinon plus. Je ne me rappelle plus, mais j'ai qu'il Mais terrain bobo. Si nous avons koy jox lañ ko lan dañuy terrain avec toutes les commodités gazon synthétique est-ce que c'est du sable qu'on nous a laissé là-bas et puis il faut oser le dire une école c'est un temple du savoir mënuñ jël ben école nan dañu koy jox ben entité ñun ñu use ko di def man école bob fa laa jàngee ba am sama entrée en sixième est-ce que war nañ ko jël parce que pour le bien de l'ASC Khandalou je suis présent hein je le nie pas pour jël ko pour ok ne nañ nañ d'accord Khandalou mën na ko c'est une partie comme ni ñu def jox nañ ko mais xalé bo jël école bi fan la leen jangé tu vas les mettre où yow xeyna am nga sa am nga ay ay ñeneen ak ñeneen ñu c'est pas parce que yow mën nga dans le privé que les autres dama naan école attends il faut réfléchir avant de parler c'est ça le problème te tey suñu jëloon école nos enfants suñu ay jarbaat fi nekk fa la ñuy jàngee jee ban école la ñuy amul eh, Simon Simon Fall wala euh, wala feneen ak feneen wala cathédrale parce que Clémenceau rek mënul continuer Clémenceau y a des enfants de la Médina ay fay jangé ak yu rëbës fan nga jëm da ngay obligé demaat ba Bibi Ndiaye FEDERB pour traverser tout ça pour des enfants qui ont 7 ans à 12 ans avec tout ce que ça comporte comme risque mais attendez ñu waxante deug quand même. mais est-ce que ñeneen ñi nga xamné tamit tay ñi nekk fi ci Dakar mu ci melni ñi nekk ci benen bor bi est-ce que jot ngeen tok waxtaan ak ñom jéem trouver solution ou un terrain d'entente mais si je pense que nous devons nous parce que nous, nous fekk nous Nous, mais les portes du collectif ne sont pas fermées chaque jour nous Le collectif bi amul ay ba nous nous ku ñëw ñu Nous bu nous nous li ñu nous Nous kii Nous nous ñëw Nous te gis nañu yeen demal ngeen ki lan ngeen ci xalaat ñu toog waxtaan penco diso mais mënoo génn parce que ministre bi def na communiqué ensuite yow tu sors tu fais un communiqué au nom de Rebeuss mais bu la neexee mais yow tu parles tam au nom de qui man su ma neexee ne moi ça ne m'engage pas moi je suis libre hein. su ma neexee ne loolu mu def ça n'engage que lui moi ça ne m'engage pas moi kon nag bu ñuy wax dañu war a toog waxtaan su fekkee noonu lañ ko bëggee te bu amee lu ñuy wax ñoom ñooy ñëw parce que nous mënuñu fekk benn mbir muy dund di dox ba 16 ans di xex benn mbir tey mu amaat beneen kii bu ñuy proposition bu ñuy def ñu ñëw naan way non non non attendez il faut respecter les gens aussi. Rebus TV mooy suñu télé. la chaîne de la vérité. tasaare leen ko.